arifin yëpp léegi la suñu xaaban di wax seen taxawaay kon suñ xaali na nga jotle cant gi ak gërëm bi ci ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkal suñ tubaa ci tool bi ndax suñ tubaa kat ab toolam mooy alxuraan kon képp ku ko ci féete ku ne te lii ngeen di def sëriñ bi la waroon kon yéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant bu baax nag sëriñ Abdou Khadir Ñang moom sëriñ Modou Khadir moom mi nga xam ne moom xalaat bi ak ñi mu ko àndal ñëpp muy xalaat yu rafet yoo xam ne nee naa ko tawfiix la ndax maamam si Mourou Fadio ne bi Serigne Touba wootee ca Mbàkke Kajoor ci bisu njëkk ba ci juróom yi njëkk joxe seen bopp wala juróom benn yi ca la bokk kon yéen di ngeen cosaanu yoon wi te xam ngeen ne maamam ku àggoon ci yàlla ak wilaayam kenn natt bi woon ak jaamoom yàlla kenn natt kenn natt mosu kon nag bu demee mu bokkoon ca daara ja daara yi suñu woon desali ji nga xam ne Sëriñ Tuubaa daa wax jógoon ndige ci rasulullah mu wax ko ne ko rabbi asaabaka bil himmati wala turabbihi bi dars am na sax ñu ci dolli faxat waaye li gën a wóor ci mbind yi daal gisu ko ci loolu day mel ne ñu koy def dañ koy def mel ne kuy bëgg a te li may ci faral di wax rek Sëriñ Tuubaa bu ku ñuy layal nañ yem ci liñ bind koo xam ne gëm nga ko fan layal xam nga ku tam loolu moom àdduna bi doonoon ndax fa in yakfur biha haulaay fa xad wakkat naa xaw man lay soo biha bi kafiran noonu la suñ noonu la àdduna doxee waaye jéem a lay sëñ bi moom jàpp naa moto gis naa nag ñëpp walaatu bi dar si waaye jàpp naa ne gisaguma fenn fu ñu ko bind kon loolu itam lu mat di bàyyi xel la ndax aw déggee nag mooy am solo ndax xam ngeen ne Sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ ne daara ndax bi muy sanc Tuubaa moo mujj mbind moomu te bi muy sëñ Tuubaa dafa wax ne li tax ma sanc ko mooy li taalumi wa taalim kon sëñ bàyyi jàngale ak Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen ne daara ji ko sëñ taxawaloo mu daa fa jàngale ñëpp xam ne ko sëñ Daam Abdourahmane loo xam ngeen ne ñëpp ci yoon moo leen jàngale sëriñ Mbàkke Buso xam ngeen daara ko sëñ Tuubaa sancaloon am na ci foo xam soo moo kon sëñ Tuubaa ma sa bàyyi jàngale kon loolu jërte jéema sax layal wala nga di ko xalaate neneen kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm nag suñu ci këri diine yi nga xam ne ñoo fi teew bàyyiwuñ kenn ñi bàyyi ko Tiwaawoon ñi ta bàyyi ko Kawlax njabootu suñu waajur cheikh al islam alhaaj Ibrahima te doomam sëñ Abdul Malik teew fi ñu rafetlu taxawaay bu baax a baax ndax seen diggante ak diggante ak Sëñ Tuubaa kóllëre gu rëy moo fi dox ñu di ko doxal diggante Cheikh Maodo Farid ak Cheikh al Islam ak Cheikh Maodo Moustapha ak Cheikh Maodo Bassir ak njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp kóllëre googu nag moo dox ba nëgëri lépp lu fa xew fii danañ fi yónnee délégation ñoom itam lu xew fii kenn du leen fi jiitu ko ñu ngi leen sant bu baax di gërëm tam sëñ ba dikkee sekk ak mboolem ñi fi teew ndax xam naa comme yéen ngeen ko lim bu ma limee damay juum waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm itam waa kuréel yi nga xam ne ñoo saytu bi te bu ñu ci tuddee sëñ Abdou Khadir ñoom ñi nga xam ne moo ko jiite ci xalaat loolu bi ñu ko ci ñaaxal lan ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñ borom loolu ko kàttan ak di nuyu itam waa jamaatu Hibaadu Rahmaan ñoom itam ñuy rafetlu seen taxawaay ndax lépp lu xew ci dëkk bi muy màggal gi ak yeneen yi xew yëpp dañ koy ànd ak ñoom kon ñoom itam ñu leen di sant jokk bokku lislaam yi di nuyu itam wala ñi nga xam ne ñoo. ñëw ci musaabaxa bi ñu ne ci biir ak ñi ne ci bitim réew ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm préfet bu Mbakke moom mi nga xam ne teew na fi teewal fi kon sëñ Abdou Khadir leen di santaat bu baax di gërëm ci xalaat bi ñu ngi ko àndal ñëpp te buñ ci tuddee Serigne Moustapha Diakhaté xaadimul xadim maa ngi koy tooñ léegi ne ko sama mbokkum daanu ko gërëm ma koy tooñ ndax moom day mel na bu fekkee dañuy wax daanu ko xam naa xam naa mën ci suufu suufum ak ñi ko seqal ñëpp di sëñ maam Mor Kébé ñoom sëñ Ahmed Saloum euh, sëñ maam Daam ak ñëpp daal bàyyiwuñ kenn ndax xam naa bu ma limee ak suñu soage yi maam moom mi bokk na ci ñi njëkk a topp sëñ Tuubaa ca giir gu jëkk ci fukk yu jëkk ya bokk suñ Mour Gueye jëm kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm siñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne sëtu borom sàmm la teew fi rek ak ñi fi teew ñëpp di sant bu baax rek di gërëm di rafetlu. sëñ Modou la Bassal moom itam ñu ngi koy sant ndax moom itam xam ngeen ne jàmbaar dëgg la day mel ne dañ ko waral sax décor ndax daara yi nga xam ne ñu ngi koy def Dakar ci région yi daanaka euh, ci day mel ne bu fekkoon te révolution la ma ne moo ko fi jëkk def mooy daare joo xam ne day nekk mu xaafis nekk mu jëti ñu ngi sant ñëpp du gërëm ñëpp xam naa boo duggee ci lim bi nag damay fàtte waaye ñu ngi nuyu ngi di nuyu yi membres mi nga xam ne moo yéen ñeen ànd liggéey bi di wax rek di wax rek ne lii ngeen def mooy jaayisa bi dafa dafa tàbbi ci woy liggéey Serigne Touba mm-hmm. ndax xam ngeen ne Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax na ko ci benn cérémonie officielle Màggal Touba ñëpp mu wax ne nit dafa ñëw ci moom indi ko pañe bu ñaana ba mu agsee sëñ bi ne ko ana ci ana loo ci jubloon mu ne ko damaa dégg ñu ne ku bëgg guro nga boo sëñ bàyyi koy jëfandikoo sëriñ bi ne ko yóbbul man de suma màndargaa ca dara lu may bëgg yàlla ak yoon rasulullah daan nag kenn mës sa nongu ci loxoom loolu alxuraan ñaana ka yoroon ka yoroon ka yoroon kaamit ba mu ne ko sa sa kaamit bi de woon lool fa farixan kazzabtum di di ci suratul Baqara nga fàtte fan nga fàtte sàdda chef daa teg si la wala ay agib bay kuube noonu la bi alxaala dama xam ko ci moom ba ñi jamono ma jàpp sax dañuy biiru kaw ñu indi ko sëñ bi ngir dafa tàbbi rek ci la sëñ bi daa def xam ngeen ne ñëpp fi nekkal ñi képp ku fi ma sa nekkee sëñ Tuubaa nit ñëpp fu ne la nit di bind ay kaamil di la ko indil mu yëkkati xaalis leen jox sëñ bi ñu daa yëkkati mbubu jox leen ñii mu yëkkati xaalis jox leen ku nekk la ko tax a jóg kon lii ngeen def jàpp leen bi lii ma nettali Cheikh Mouhamadou Fadil léegi ci suñu xabaan jaayisa la ndax danoon ku ci mokkoon alxam mu yóbbul Mbàkke kon ci foofu rek la tàbbi kon daal ñu ngi sant ñëpp keroog ba suñu Ablaye ja def li doon ndaje bi ñu doon di fii ci Touba màggal Touba gi dugg waxoon naa leen leneen lii bokk na ca loolu kon ñi ngi sant ñi ci Abdou Khoudoss hmm? hmm? Abdou Khoudoss Abdou Khoudoss waaw ñi ngi gërëm bu baax sëñ Modou Kara ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ci liggéey bi moom positifam sëñ Tuubaa ñëpp xam ne ko bëgg lu mu jàpp ne bëgg sëñ Tuubaa dana ko dàq sëñ Maxtaar Jenn mi nga xam ni itam tudd ngeen ko waxtaan ci liggéey bi moom itam ñu ngi koy sant bu baax di gërëm di jeexale kàddu yi rek ca sëñ Fallou suñu fàtte xëy moo tax lii moom boo ko xasee dugg rek faaw nga fàtte ndax waaye nag kuñ tudd itam nga xam ne rek li am solo mooy eh, defuñ ko ngir àdduna dañ koy def ngir sàkku ci tuyaaba yi bàyyi ko suñu borom alxam li ci war a defee da ko war a seelaat dara àdduna wuru ca tàbbi ku koy def itam kon loolu rek lañ jublu kon ñi ngi sant ñëpp di sant ñu mu wàllu ci yàgg def yëpp fàttewuñ kenn ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu